salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi kuy nelaw na nga yeewu président de la république tojati na réew mi ànd koog ministre de la jeunesse lan la tojee réew mi ñiy jaar ci gaal yi damaa bëgg ngeen arrêté président day ubbi le 15 novembre mercredi bi ca Kaolack ah maison de la jeunesse. maison de la jeunesse vous jeunesse bi mën a wutee liggéey Sonatel dootoo fa dem dootoo dem Senelec dootoo dem ci benn endroit foofu ngay dem directement ah déposer sa sa sa say say diplôme joxe say kayit ñu wutal la liggéey li ci gën a neex ba neex mooy am na piscine bu yànji boo paree da ngay toog féexlu zapise def lu la saf cay président de la république loolu man xam nga fan laa ko daan gis Europe Europe rek la am léegi nag su loolu nag le président de la république Macky Sall ah ànd ak ministre de la jeunesse def ko Kaolack eh dafa njëkkee Kaolack gese de mais département yu bëri dinaa leen ko ma appelé bu nekk président de la république dana fa def benn yi laa bëgg ngeen bàyyi gaal yi baaxul yi ngeen di jaar muy mag gi ndaw ñi surtout xale yu ndaw yi ngeen di yóbbaale gaal yi moom ku ci jaaree ci ma toj sa cottu ndey parce que nag liggéey am na saagakat yi nekk ci internet bi di di wax lu ñaaw di xasaati même ñoom dañ leen fay jàngal seen diine seen xam parce que ay kilifa ña nga fa ay ustaas ña nga fa ak ñuy conférence di waaraati lépp la am xool leen gars yi ni ni liggéeyee xool leen ni mu ñànjee xool leen bu baax ni mu yànjee liggéey am na dem leen gaaw kawrax ah ko ouverture bi le 15 novembre lay doon mercredi ngeen visiter déposer jéem a liggéey pour jeunesse bi kase ko tax a jug nag jeunesse bi donc président toj nga réew mi monsieur le ministre jërëjëf kontaan nañu waaye doon nit waay